faslun li ab dog la ida kaana dem nekk na fii ahda il wuddooy ci cëri njàpp ma aw xëyri ha mbaa dul cëri njàpp ma jurxun ab gaañu gaañu waxaafa tem ragal min xaslihi ci raxasam bil ci ndox fawaata nafsihi faatu bakkanam aw fawaata manfaatin wala faatu njariñ aw siyaadata maradin wala dolli tawat aw ta axura bur in wala yeexa wér aw xodwasa maradin wala sosuk tawat fa innahu naka moom yam saxu dana masaa masa alayhi ci kawam alayhi ci kawam bunt bi lu am solo la ndax daanaka kuy dund rek loolu la faral dal maanaam bu fekkee ne sa cëri jàpp dafa am gaañu gaañu mbaa boobu sangu farata moo la war te am na ci seeram foo xam ne moom da nga caa gaañu te gaañu gaañu boobu boo ko raxasee ni la ko digalee benn sa bakkan mën na caa des nga far faatu mbaa ab cër mën na caa làggee mbaa lu ko nuru mbaa tawat mën la mën na la caa dal joo xam dalu la woon mbaa tawat joo amoon far ca yokkoo mbaa tawat joo amoon far ca yéex wére yooyu yëpp nga xam ne ko baa ñu wax la ko te kër ko wax di ko xam paj mu ne kon su boobaa dañ lay defal ak jàppandal mooy doo ko raxas dangay raay ci kaw rek waaye ngay awale sa loxo ci kaw rek danga mën nga awale sa loxo ci kaw sa loxo day tooy ba noppi rek nga awale ko ci kaw ndànk bañ koo ragg ragg farata woon waaye yow wàcc na la fa in lam yastati ndem mënut almasa masa ga xalihi ci moom masaxa kon mu masa xaalal jabirati ci kaw garab ga waxiye moom addawaaw mooy garab ga ëllësi ga nga xam ne yucc xalu def na ko def xalihi ci moom bu fekkee mënoo jékki-jékki raay koog sa loxo kon na koy garabal ba àggal door awal sa loxo ci kaw garab ga mel ne buñ ne bu fekkee diwoo ci dara ndox da ci solu te kon na ngay gaañu da nga ciy diw lu mel ne mentalato wala sóora wala xeet yooyu nga xam ne mooy tee ndox solu ci boo ko diwee ba noppi na door a massa ci kaw nag ba tey fa in lam bu fekkee mënut almasa masaa ga xale xaleexaa ci kaw garab gi masaxa kon mu massa xalal xisaabati ci kaw ŋaaw ga ŋaaw wala bandage dafa wax ne bu fekkee ne boo garabalee ba lu tax nga mën koo raayu sa loxo ñun la kon da koy bandage mooy danga koy ŋaaw ŋaaw gi itam bu fekkee benn ŋaaw du doy mën nga ko tegaat beneen beneen ci kaw ba keroog nga koy mën a massa rek donte juróomi ŋaaw nga koy ŋaaw rek door ko mën a massa itam baax na loolu na fa lay mën a yem moom bu fekkee sa loxo mënu koo laal daañ ko wax ci kanam waaye fii moom bandage ko kem ay yoon yi tax nga mën koo massa moom foofu lañ mën a yem ko defee nag boo ko bandaayee boo ko bandaasee noonu nag nga raay ci kaw bandage day ci aji dolli ko ja ak doonte ci aji dolli ko ja la xayril muqaabili judul aji tolloog lil jurixi ñel gaañu gaañu ba neen doonte bi koy bandaas wala bi koy ŋaaw ŋaawaale nga loo xam ne gaañuwut sax loolu na faral di am xam nga léeg-léeg booy takk ab góom wala yooyu danga nga takkaal loo xam ne moom gaañuwut waaye du ci dara du tee loolee nga ngaaw lépp yoon dina la may nga masaa ko rek noonu ndax ngànt lee ko waral misaala ko nag ka fas di nekki gàjj bu amul sëddit goo xam dafa yàqu ci yaramam mu dagg ko su boobaa àtte bi lay amee soo mënee jekki-jekki masaa ku baax na soo ko mënul nga garabal door a masaa soo ko mënul nga ngaaw ngir naawee nga mën door ko masa waxi maamat ak kaala xiife goog ragaleef na bi nasiha ci summeem soo kaala woon baa nga sol mbaxana te ragal ne boo dindee kaala gi mbaa mbaxana mi sedd bi solo la te bu la sedd bi solo rek nga gaañu ko amu sedd na koy dal mu nekkoon kooku day bàyyi mbaxana ma noonu ak kaala ga daal di masaa ci kaw rek noonu doonte càngaayal farata la it day masaa ci kaw rek noonu ndax bañ a wa yustaratu def na sartu fil masi ma masaaga almadhkuri ka di wañ tudd añ yakkoona bu nekkee jullu jasadihi li ëpp ci yaramam saxiixan di aji wér aw jarihan wala muy aji gaañu wala yetta dararu tey du loru isaa xasala ndeem raxas na ak saxiix aji ja nee lii nag bala ñu la koo digal ci nga masaalee raxaslee day fekk mën naa am sa yaram lépp mën naa am lépp ci sa yaram daa wér tuutee ci gaañu mbaa lu ci ëpp gaañu na la ci am solo daal mooy yow ni la ko digale boo ko defee raxas la wér masaa la gaañu du tax mu andil la benn musiba xam nga li ñu la ko digalee mën naa am nga mën ko te boo ko defee lor dal la ca maanaam léeg-léeg boo raxasee li wér ci say cër masaa la amee gaañu gaañu da ci jëlee sa bakkan mën caa des mbaa yooyu su boobaa kon daañu wax ni ngay def mooy da ngay bàyyi lépp te far tiim waaw moom mën naa am lépp ci sa yaram wér la ci gën a néew moo gaañu mbaa la ci ëpp moo gaañu la ci gën a néew moo wér la ci am solo rek mooy soo raxasee la wér du tax mu mu yàqal la gaañu gaañu ko mooy du tax mu indi la ngaañ lu metti ci gaañu gaañu ko nga xam ne fa in kaana ndem nekk na rek yetta dararu di loru bi xas li saxiixi ci raxas aji wér ja aw kaana walla nekk a saxiixu aji wér ja xalilan di aji néew jiddan lool ka an lam yabba mel ne budditut illaa yedun dara aw loxo aw rijlun ba ab tànk fa innahu naka moom laa yaxsilu du raxas as aj aji wér ja wala yam sax te du masaa xala jarihi ca aji gaañu ja mooy ca la ca la amee gaañu gaañu ba li fi nekk yan taqilu day toxu rek lit te yow mi jëm ci tiim ate baa ngoog daa wax ni bu fekkee ne nag li la wax boo ko defee da nga ko mën mooy raxas li wér masaa li gaañu waaye boo ko defee da nga ci jëlee musiba mu rëy rëy mbaa yàlla daa def yow daanaka sa yaram yëpp ay gaañu gaañu la tuutee ca gaañuwut mel ni sa yaram yëpp benn loxo dong moo ci amul gaañu gaañu mbaa benn tànk dong moo ci amul gaañu gaañu mu nekkoon kon dañ lay jéggal nga far tiim rek bul jéem a raxas la wér bul jéem a masa la gaañu demal tiim rek far ñu defal la jàppandal ci yoon nga dem tiim rek yem ci wa ida taxaddara ndem gàntal na masul jëriyi masa la ñu gaañ mooy la amee gaañu gaañu bi xaysu laa yumkinu ci foo xam du jàppandi wadaxu shay'in teg dara alayhi ci kawam wala mulaqaatoo du jaagoonu ak taseem ak bil maayi ci ndox loolu mooy li ma wax maanaam fi nga gaañu daa àgg ci sa loxo mënu koo laal dana faral di am ay gaañu day metti ba léegi la waxoon naa da koy raay ci kaw bandage sax ko cee teg sa loxo mënu koo laal faaw da nga koy dégg su boobaa neen dañuy seet danga moom àgg na ci metti ba mënu cee teg dara ci kaw sa loxo mënu koo laal kon ñu seet fa in kaana nekk na fii mawdihi tayammumi ci bérébu tiim wala yumkinu tey du jàppandi masxo ak masaam ay daan ba tey bittura bi ci suuf tarakaxoo kon mu bàyyi ko bilaa masxin ci ludul masa wala xas lin du jaageen raxas wa xasala mu raxas rek maa si waaxu ludul na bu fekkee gaañ-gaañu ba daa nekk ci bérébu tiim bérébu tiim mooy kanam ak loxo rek kanam ak ñaari loxo rek moom mooy bérébu tiim bu fekkee foofu la gaañ-gaañu bu nekk hmm. li muy tekki mooy yow boo jàppee du mat boo tiimee du ndax dem gaañ-gaañ bi mu nekk ci kanam ba loxo te kanam ak loxo moom boo dee tiim ak boo dee jàpp ci yemoo ñu ngi bokk ci cëri tiim bokk ci cëri jàpp te yow mënoo koo laal ak ndox mënoo koo laal ak suuf kon nee na da ngay dem jàpp ba noppi ko dangay yow boo tiimee mu manqué boo jàppee mu manqué da ngay dem jàpp kon jàpp xam nga moo gën a yaatu ci ay cër jàpp moo gën a bari fu mu dem kon da ngay dem jàpp ba noppi nag dégg bërëb boobee nga xam ne dafa gaañu te mënees koo laal loolu mooy bu fekkee dafa nekk ci kanam mbaa ci loxo yi mu ci tiim nga xam ne boo tiimee mu manqué boo jàppee mu manqué kon na ngay jàpp rek ndax njàpp moo gën a yaatu wa in lam yakun dem nag fii ax daa it tayammum yi ci cëri tiim fay nexoo naka moom yaxsilu day raxas as saxiix aji wér ja waaye tayammumu tamuy tiim xalal jariyi ci la amee gaañu gaañu xalaa ahadil aqwaali ci benn ci wax ya al arbaxat di yent mu des nag bu fekkoon ne sa gaañu gaañu bi nekkul ci kanam nekkul ci loxo maanaam daal nekkul ci cëri tiim mu mi ngi ci sax tànk bi fi ngay raxas tànk bi ci booroon jàpp foofu la nekk foofu nga mënta laal xam nga kon li muy tekki mooy booroon tiim dana mat booroon tiim kon dana mat ndax xamul nee nga ci kanam nekkul ci loxo kon dafa mel ne kon booy tiim day day mat te booy jàpp mu manqué am ñu ne kon da ngay dem tiim rek te bàyyi njàpp mi am ñu ne déedéet da ngay da ngay jàpp rek ak lu mën di am ba muy ñeenti wax wax bi mu la tànnal nag mooy dangay ngay boole yaar yëpp da ngay dem jàpp ba noppi déeg bërëb ba nga xam ne mënoo koo laal su julli rek su julli rek desee na nga door a tiim teg ci tiim bu mat ndax xam nga nee nga gaañu gaañu bi nekkul ci cëri tiim yi moom mooy da ngay jàpp njàpp moo xam ne faawu day manqué ndax nee nga gaañu bi nga mënta laal ci cëri jàppee la nekk mu ne tànk bi ma ko misaale soo jàppee nag ba biig bërëb boobu amee gaañu gaañu nag ba julli képp des ci nag nga tiim dolli ji nag tiim moom day mat ndax gaañu gaañu bi nekkul ci kanam nekkul ci loxo moom nag boobu la ñeenti wax la waaye boobu la la ci taamal hmm. daam ñu teqale nag ne bu fekkoon ne bu gaañ gaañ yoo bariwut nga xam ne boo dee jàpp da nga raxas lu bari kon dangay jàpp dong bu fekkee nag gaañ gaañoo yoo daa bari ba nga xam ne boo doon jàpp li ngay raxas lu bari kon da ngay tiim dong waaye nag moom dalaa tàmmul rek wax bi nga xam yaar yëpp ngay boole mooy da ngay tiim gannaaw boo jàppee ba noppi def la nga mën ba dégg la ngay dégg nga wëlbatiku nag tiim wa ida masaxa ndeem masaana xalal jabirati ci kaw garab ga su ma nasaxaha topp mu dindi ko li dawaa in ngir defaat garab aw aw xëyri yi baalu aw saqatat wala nga xam ne moo rot bi boppam batala kon yàqu almasu masaaga xaliha ca moom waaw nee na nag bu fekkee danga ko garabaloon ba yàgg nag nga ne woon naa dindi garab gi defaat ci geneen garab wala naa dindi bandaas bi defaat ci beneen bandaas wala moom moo jekki-jekki dañal boppam kon nee na jàppal ne bu fekkee weer nga am jàpp te bëggoo jàpp moom nga ñàkk ko kon da nga daal di gaaw saawaat foofa nit ki bu dee bandaas nga gaaw bandaasaat ko te gaaw raayaat ko bandaas ba bu dee garab nga gaaw defaat ci garab te raayaat ko fi saasa boo bañee ñàkk jàpp moom waaye soo dindee garab gi ci nekkoon mbaa mu dañal boppam fekk sam jàpp tëjut hmm, boo bàyyee ba mu yàgg rek jàpp moomu day yàq waaw njàpp moom booy bàyyi ba mu yàgg te defaatoo loolu rek ndax yow masaa gi nga masaa woon loolu moo wecc woon raxas foofa te léegi loolu dañ na bu dee garab gee dindi nga ko ngir garab bu dee bandaas bee dindi nga ko ngir defaat bandage mbaa mu ratul boppam kon boo delloo see garab gi mbaa bandage bi te bëggulaa ñàkk sa njàpp moomu dal ngay daal di gaaw masaawaat ko ko defee rek nga yorum njàpp na nga ko yoroon ba tey waaye bu yàggee te defoo ko rek daal di njàpp moo tax mu ne wa isa raddaha ndem delloo si na ko fa laa budda mënta ñàkk minal masin ca masaaga taaniyan yoonu ñaareel mooy soo ko delloo si koy masaawaat ngir mooy mot li sam jàpp hmm. soo ko fàttee nag moom lu yàgg-yàgg rek saa yoo ko fàttalikoo daal di mën a masaa waaye nag bu fekkee yaa ko tey moom gaaw la masaa ko njàpp ma nga yoroon yàqu loolu mooy teq faslun li ak doog la fil mas ci masaa xalal xuffay ni ci ñaari sànq sang mooy wala fi njëkk yi waaye ay bot lañ ko gën a miine maanaam daam sart yoo xam ne bu ci dajee ba solo bot du aajowoo ngay summi bot yi di raxas tànk bi da ngay raay ci kaw bot yi rek daal luy xam ne ak jàpp ndal la ko di defal lil mas yi ñeel na masa alayhi ci kaw bot wi tamaaniyatu shurootin juróom-ñetti sart nee na am na yoo xam ne mooy tax nga sañ a ci kaw bot yi te bañ a raxas say tànk al awalu bu njëkk bi ay yekkoon may mu nekk jil dan diw der fala saxu du masa ala xayrihi ci lu dul der kal xirax yi niki ay sagar wan naxwiya ak lu mel ne ñoom idaal soni xat ndéem liggéeyeef na leen xala xay atil xof fi ci melaw bot ah nee na dañuy sart mu nekk der moom bot wi moo tax lu mel ne ay kawas xam nañ ko liggéeye ci xeetu wateen yooyu doo ci mën a masa ndax ko nekkul der doonte sax day muur li ay bët di muur it doo mën a masaa ci kaw xanaa illal jawara ba ndara jawarab jawarab ba tey kawas lañ koy firee waaye nag xool liñ ci teg mooy waxoo moom maa mooy la nga xam ne kaana nekk na xalaa chaklil xuf fi ci melow bot beneen kattaani te bàyyi ko ci wëtteen wana yu ak lu mel ne moom ba noppi nag min fawqi yi nekk na ci kawam wa min taxati yi ak ci suufam jildun aw der maxaroo suñ wariwuñ ñaaw hmm. nee na ñu wax jawrab xeetu kawas la ñu koy liggéeyee ci coton wëteen mbaalu ko nur waaye nag sart bi ñu sart da cee am mooy kaw gi nga xam ne mooy féete asamaan day nekk der lii féete suuf nekk der yaar yi moom bu nekkee der rek baax li ca des moom bu nekkee wëteen mbaa leneen du tee nga mën ci amu sax na ñu ci defar di ko jaay nag fi mu toll nga xam noonu koy def boo ko soxlaa ñu jaay la ko nga xam ne dañ koy liggéey liggéey boo ko mën a masaay bu dee jamono yoo ko li féete asamaan bu nekkee dara bañ ñëw li féete suuf doon ko rek baax na ya des bu doonee sagartam du wàññi dara ak ñaaral bi añ yekkoon mooy mu nekk taaxiran di aji laab falaayam sax du masa xalal najisi ci aji sobewu ka jildil xinsiir ni ki deru mbaam xuux wa jildil maakooli ak deru lu ñu lekk xayril mudakka lu dul lu ñu rendi awil mudakka wala lu ñu rendi xayril maakooli lu dul lu ñu lekk sar ñaar bi mooy ba mu doonee der na nekk deru laab bu dee der woo xam ne yoon nee na sobe la nekk deru mbaam xuux wala loo xam ne des na ko lekk waaye dafa mëdd am ba sobe lay doon wala loo xam ne ren nañ ko waaye daa waxuñ bu kenn lekk nga dolli ci wa in dubix ak doonte sibi jëf na ko sibic mooy dénd dañuy déndeb der ba mu set loolu mooy sibic waaw dafa wax ne loo xam ne kenn du ko lekk mel ne mbaam bu ko rendi woon defar der ba mu set it du tax der wa laab yooyu jamono nag kon des ci mën masaa bu ci liggéeyu bot ak taalisu aj ñetteel ji ay yekkoona mooy mu nekk maxroosan di lu ñu ñaw maanaam dañuy sart der derwa ñu ñaw ko boole ci ni ñu ñawee ci wuute yi rek noonu ñu ñawee ñawee ko noonu falaa saxu du masaa xale ci moom idakaana dem nekk na marbootan di lu ñu yeewu aw nax waxoo wala lu ndox moom su fekkee dañ ko yeew ba mën koo sal ci tànk bi rek mel ne bot baa ñu taqale ko ci kol ñu taqale ko ci laax yu mel noonu wala ci dàkkaande du tax ñu mën cee masaa faaw aajo aajowoo rek ñu ñëw ko arraabihu ñeenteel bi ay yakoon mooy mu nekk saatiran di aju suturaal li ma xallil fard ñeel béréb bu farata ba laamaa waxuñu loo xam ne naq sa yées na naq sa yées na ko laamaa waxuñu loo xam ne naq sa yées na ko maanaam bor yi lu mu gàtt gàtt na sàng say dojor dojor yi nga xam ne boo doon jàpp raxasaale ko na ko bot yi ëmb lu mu gàtt gàtt waaye su ma leen ay mukki rek nga xam ne bot yi sanguwut am na ca lu sanguwut ci nga xam ne boo doon jàpp raxas ko su boobaa kenn du ci mën a masaa moo tax mu ne falaa yasix du wér almasu masa yi ci moom bu fekkee yees na surtout daal béré bu farata ba wakkasaani ki ne inkaara nem am na fii ci moom xarxun xottiku kabirun bi aj rëy xadaru sulusil xadami bu toll ne sulusum dëgg la nee na bu amee xottiku bu boo xam ne war naa toll ne ceerum dëgg la maanaam boo defoon dëgg la ñetti xaaj la ca xottiku dana mat benn xaaj ba ci ñetti ñooyee lu toll noonu bu amee faawu dees raxas tànk ba waaye dees ci mën a masa su juróomeel bi ay yumki na mooy mu jàppandi tataabuxul machi toftale dox ba fii ci moom nga xam ne kon falwaas aj aji yaatu ja ëllësi ja nga xam ne laa yumki na du jàppandi tataabuxul machi toftale dox ba fii ci moom falwaasihu aji yaatu ja allësi ja nga xam ne laa yumkin du jàpp ni an yutaa bi ha mu toftale al machi dox ba fii ci moom laayom yam saxu duma saa ci moom nee na juróomeel bi mooy bu mu xat ba mbaa mu yaatu ëpp nga xam ne ku la seen ngay dox rek mu daal di xam ne yow sa daal yee tax waaye loolu di saw dox yi xam ne kon bu yaatu ba mbaa mu xat ba kenn du ci masaa tey normal rek si ni ngay doxee xam noonu la war a mel asaadisu juróom-benneel bi añ yal basaxoo mooy musal ko xalaat taxaaratin ci kaw ak laab falaa yam sax du masaa xale ci moom ida labisaxoo ndeem sol na ko wax wati fekk na moom muxdisun aji toj la la juróom-benneel bi mooy bi nga koy sol fekk nga amee laab bu bàyyi ko woon ci wana wa daal sol boot yi rek noonu bu dee jàpp faaw mu raxas tànk yi ndax bi nga koy sol booba ak toj le maanaam ci ñàkk laab la nekk wa yushtaratu def na sart fi haadihi taxaarat ci gile laab an takkoona mu nekk maa iyatan di ko jug ndox ci kaw loolu falaw tayam mama doonte tiimoon na su ma labi sa toog mu sol ko lam yam sax du mën a wasa alayhi ci moom biñ nee na nga ko sol ci laab laab ga day nekk laabug ndox na nga jàpp génn jàpp ba noppi sol ko mbaa sangu farata ba noppi sol ko waaye bu fekkee dafa tiim ba noppi sol ko sol na ko ci laab waaye di ko sol ci laabug suuf te laabug ndox lañ sart wa an takoon ak mu nekk moom laab ga kaamilatan di aji mat dañuy sart bala ngaa sol wenn bot ci yaari bot yi fekk laab gi àgg mooy nga defar ba àgg ci laab gi bu dee njàpp noppi nga bu dee sangu farat noppi nga ci kaw loolu wala waxasala doon ci raxasoon na ihdaari jilay yi benn ci yaari tànkam wa àdd xalaxaate mu dugal ko fil xuf fi ca bot wa xabla xaslil uxra xabla xaslil uxra ci njëkk raxas tànk ba ca des wa naxwu daalika ak lu mel ne loolee laa yam saxu duma saa alayhi ci looloo tax bu fekkoon ngaa raxas tànkum ndeyjoor daal di ko sol aw batum xaat te raxasugoo tànkum càmmoñ day mel nekkoon kon teel ngaa sol ba yi te njàpp mi àggagut yooyu jamono sart bi xëtt na boo dee jàppaat faaw nga raxas tànk yi loo mën a masaa day aajoo nga raxas ñaar tànk ñëpp ba noppi dooru sol na bodi saabi juróom-ñaareel bi an laa yàkkoona mooy mu nekk an laa yàkkoona mooy mu bañ a nekk asaabihu an laa yakkoona moo di mu bañ a nekk xaaseen di aji mooy bi lub si ci solom kal muhri mi ni ki aji armal mu xayril modd tarri judul juñu loruloo lub si jëm ci solom aw bi safari yi wala ci tukkee kal xaaqi ni ki aji dagu bokk wal aajo ak jaam buy daw ab sang falaa yam sang du masa waahidun kenn min xumaa ci ñoom ñaar nee na sartu juróom-ñaar bi mooy bu doon koo xam ne sol gamuy sol bot ya yoon aay woon na ko ko moom moo dëgër bopp def ko rek waaye aay woon nañ ko ko niki bu fekkee dafa aramal aj dafa aramal aj wala umra li fekk mu ko du saña a sol ay bot da nga am na yeneen dàll yooyu jamono kon bu solee bot yi da koo sol rek ci xëtt ndigal su boobaa du ci mën a masaa faaw day aajo mu da cee boole nag moom bu fekkee tukki bay tukki mooy la niki kuy dog kuy daw ay bokkam niki daw ay waajuram wala jamono jaam amee jaam bi daw sangam da cee wàññiwaale boobu waaye am na ñu wax ne kooku moom du ko tee masaa ndegam jëmmi tukki bi rek aay waaye jëmmi sol gi moom aayut moom du ko tee masaa athaaminu ak juróom-ñetteel ji an laa yakoon mooy mu ñu nekk mutarafiyan di aji bànneexu bi lub si ci solam fa man labisa ko ko sol rek di naw ngir te di nelaw aw na yi mbaalu mel ni moom laa yem du masaa ale ci moom sar juróom-ñetteel bi mooy na ko sol ngir roy ci sunna mbaa ngir fegoo ko jiiteeg jaani ak yi demee noonu waaye bu ko solee ngir rek dafa xew borom barke yee koy sol wala day tëdd rek sol ko noonu ngir të ngir tëddaale ko te mel noonu dong bu fekkee moo tax mu sol ko bare lu ci mën a masaa day aajowam raxas tànk yi tam biiroon li ak yeeti la isaj tamaxat ndem tase na haadihi shuruut yi lay sart jaasu kon dagan almasu masaaga wala yetta waqatu tey du daytalu maanaam du yem bi ci wenn waxtu nee na sart yi bu ci xësee tase moom mën nga saa jàpp rek daal di massa daal di bañ a raxas tànk yi te kam la wax ne ne boo amee ay baa boo amee ñaari fan mbaa ñett boo amee ñaari ay bis faaw nga summi ko déedéet li fekk dafa luy xët sart yi rek mën nga raay ci kaw te bañ a raxas tànk bi wala yel sama woo du ko war nasuhu ak summeem illa an taxsula dara bu dafa am la ñeel ko janaabatu janaaba kenn la wax ne la faaw nga suli faaw nga summi sa bot yi raxas ah, tànk yi lu may nga dem ba amee janaaba soo amee janaaba moom faaw nga summi bot yi raxas tànk yi masaaru ca doy moom ci janaaba ji aw yax wala am fii ci moom xarxoon xottiku kabirum bu aji rëy soo amee bu rëy bu toll ni ci yarum dëgg la ni mu ko xewoon ci gannaaw kooku bi jeex na faaw di ngay raxas tànk bi rek waaye doo ko mën a masaa aw yenn si wala mu summi xadama xoo ndëggoom aw ak saraxa mbaa la ëpp ca ndëggu la illaa saaxi xuffihi ba ci yàllu botam wa xam nga léeg-léeg bari da yaatu ba nga xam ne mën ngay ñoddi tànk bi muy génn ndànk-ndànk di ko def bu xeet léegi nag boo koy ñoddi ba nga xam lépp ci sa ndëggu ñëw na ba ci fi tolloog yeelu bot yi yeelu bot yi mooy fi war a tolloog yi sabi yàlla rek boo solee bot yi léegi nag boo dee summi di génne ndëggu li ba lépp ci ndëggu li ñëw na foofu nag sooy boo far jàllale summi gi te xam ne permission bi ñu la mayoon jeex na dañ ko far jàppee ne summi nga far benn yoon ndax lépp ci ndëgg li mbaa lépp ndëgg li ñëw na ba tolloog foofu mooy ba tolloog tànki bët yi tànki bët yi mooy fi tolloog boo ko solee sa biyel boo sumee ndëgg bu ñëw bu foofu say boo jàll rek xam ne permission bu jeex na wasifatul mas weloo masaaga al mustahabatu wa di wuñu sopp an yabaxa mooy mu teg asaabixa yadihi baaraami loxoom alim naa bay ndeyjoor ala atraafi asaabihi rijlihi coti baaraami tànkam min zahiri xadamihi ci bitim wa yadaxante muy teg yaddaxoo loxoom al yusra bay càmmooñ min taxti atraafi asaabihi ci ron cati baaraamam ya min baatini xuf yi ci biir aw batam min baatini xuf yi ci biir aw sangam wala ci biir aw batam wa yu mir raxumaa te mu leen di rombale ilal kaambay ni wacc ñaari dojor ya waaye nee na melow masaagi mu yomb na loxoom ndeyjoor day féete kaw nga teg ko cati baaraam ya loxoom càmmoñ féete suuf nga teg ko ci suuf kon mu cati baaraam ya nga daal di ñoddi nag mu jëm ci say doyar nag ne nii ma koy bëgg wanee rek moom yow mën mhm. a dana def bi ñu sura càmmoñ ba kazalika naka noonee xala ahadil qawlayni ci benn ci ñaari wax yi waaw nee na boo demee tànku càmmoñ nee nga defoon ci bopp ndeyjoor moom ngay defee ci kaw boo toppee benn wax ba te mooy loxoom ndeyjoor mooy féeti kaw ay boo toppee wax bi ca des nag mooy ndegam yaa ngi tànku càmmoñ loxoom càmmoñ daa war a kaw boog ne joru feeti suuf faslun lii beneen dog la alxaydu mbërëk mbërëk huwa addama mooy deret ja alxaariju jay aji bi nafsihi ak boppam min xubu li man ci sawukaayu jigéen jooxam xam ne taxamilu dana ambu xaadatan ci aada nee na mbërëk deret la joo ne day génnal boppam su fekkee daa wéradi du moom bu fekkee wéradee ko tax génn du moom bu fekkee ne dañ ko gaañ ba tey du moom bu fekkee ne am dooma ko waral ba tey am na weneen toro waaye jigéen ci boppam daal bu tolloo ci ab jeeg nga xam ni moom weesoogul am doom te toll na ci te weesoogu ko daal ndawul bu ëpp magewul bu ëpp am deret ji muy gis joo xam ne daanaka weer wu mu gis ko bu fekkee ne wéradiwut te ëmbut ci ëpp weer wu mu gis ko dara jooju nag moo tudd mbërëk ci waxi wolof yu njëkk yi ñu koy wax nag reegal reegal nag mooy waxin tubaab yi su ko defee nag dara jooju daa bari ay atti lool ci lislaam moo tax ñu koy jàngale ci téere yi lu aju ci wàllu jaamu yàlla lu aju ci wàllu sëy da caa bari ay atti lool moo tax nag li ko wax fii muddati xamsata xachara ci diiru fukk juróom yow man ci ay fan fa duunaxaa topp lu ko yées ilaa saaxat ba ci wenn waxtu nee na bu fekkee ne yoon la mos a gis deret moom jigéen ji mosu ko gis lu may booba kon mën naa gàtte ne wenn waxtu baa mu jekki-jekki ne soteet daal di jeex fi saasa koy dutee mu sangu daal tàmbalee jullee ko war waaye na mën naa yàgg ak moom ba am fukki fan juróom waaye mënta wees nag fukki fan juróom moom su amee fukki fan juróom te taxul mu jeex dañuy jàpp ne kon jàngoro la su ko defee nag mu sangu te jullee ko woor mel ne yorul deret man xëy na wilaada ci ak jur tax ne ci lu jur mooy bu fekkoon ne juree ko waral kon deret deret wasin lay doon te su boobaa daañ ko wax ci kanam wala maradun du caageenu tawat te it tawat waralu ko su fekkee tawat a ko waral mooy deret jàngoro daañu ko wax léegi luy àttee moom itam mel ne ji nga wax léegi rek bu weesoo fukki fan ak juróom loolu déedéet jàngoro la kon fa aqalluhu gën jaa néewam laa xadda déet limite la xoo di ko ñeel limite mooy dayoo maanaam kon gën jaa néew bi rek yemukaay mën naa gàtt lool ay seconde rek mu sotti ko dal di jeex benn yoon tax kon mën naa néew lool ka àgg sari tuuxari ñi ki gën jaa yàggi laab gën jaa yàggi laab itam amul limite maanaam gën jaa néewi laab dana ko wax léegi moom faaw mat fukki fan juróom waaye nag ñu mën a dogu ci ne jigéen ji bu deretam jeexee bu amaatee fukki fan juróom ba ñaar fukki fan faaw ko loolu coobare yàlla lay nekk mënuñu koo takk wa ama aqallu daal gën jaa néewi laab fa xam sa taxachara mooy fukki juróom yow mën ci ay fan ak laab moom lu mu néew néew mat fukki fan ne bu fekkee jigéen ji yoon topp na ko ba ne ko sa deret jeex na lu néew néew mu amaat fukki fan ak juróom door koo jisaat mbaa bu ko gisaatee dañ koy jàppe jàngoro waaye dañuy jàpp ne laab gi moom mënta yees fukki fan juróom xam ne kon bu weer ne jeex na tëgaatuñ ca lu may ay fan rek matul fukki fan juróom mu daal di koy gisaat dañuy jàpp ne kon loolu jàngoro la teew muy ko julli ko woor waaye nag bu ci tëgaatee fukki fan juróom dellu ko gisaat nag dañuy jàpp ne kon deret ji yees la xam ne moo njëkk ja bokkuñu atte ci deret atte boobu la yore wa amma aktharul di daal gën jaa yàggi rek bu la nee na gën jaa bari mbarag fa yaxtalifu dana woote bi ixtilaafil xuwyadi ci wuuteeg way mbërëg yi maanaam jigéen bu gisee deret nu mu war a yàggee ci moom moom nee na am na ñetti jigéen ñoo xam ne kenn ku nekk àtteem xam nañ ko wutale ki nga xam ne bi yoon la ko mës a def ak ki nga xam ne def na ko defati ko ëmbut ak ki nga xam dafa ëmb mu ñett yooyu kenn ku ci nekk àtte boppam la fa in dem nekk na mubtada atan di koy door a gis deret fa ak saraxu gën jaa yàggam fi xaqihaa ci àqam ida tamadat ndem sax na bihaa ci moom alxaydatu mbërëg ma xam sa taxashura mooy fukk ak juróom yow mën ci ay fan maanaam bu fekkee ne moom tey tey la ma sa gis deret lu mu yàgg-yàggal moom doon naa ko wax léegi du mën a weesu fukki fan juróom ndax soo amee fukki juróom te jeexu dañuy jàpp ne léegi jàngoro la digal ko mu sangu tey woor tey joteeg jëkkëram ndegam soob na ko ndax jàppeetuñ ko mbërëg hmm. wa in ndem nekk na moo utaadatan di aji baaxoo mbërëg aji baaxoo mooy koo xam ne lu léeg-léeg defal na ko benn yoon xam ne lii moom du bu njëkkam benn mu ñaar mbaa ñett kooku fa imma an taxtalifa benn mu woote xaadatuha aadaam muy baaxam am laa wala déet nga xam ne woote wut nee na bu fekkee ne gis na ko ji gisati ko dañuy seet ba xam bu dee koo xam ne mboolem yoon yu weesu ñu tolloo lim bu mu am jeex ni ki def na ko yett yoon waaye bu ci nekk ñeenti fan la loolu mën naa nekk mën naa tam itam def ko ay yoon yoo xam ne benn bokk ca morom ma léegi am na yoon boo xam ne ñeenti fan laa mën jeex am na yoon boo xam ne juróomi fan am na boo xam ne juróom benn fan kon lu ci nekk mën na koo doon fa in lam taxtalif ndéem wuute wutoon istadharat kon mu wóorlu xalaa xaadatiha ci kaw aadaam bi salaasati ayaamin ci ñetti fan maalam tujaawis li fekk jéggiwut xam sot xasaraf ko juróom yow mën ci fan nee bu fekkee mboole yoon yam ko ma sa gis yëpp ñoo tolloo ay fan daal di jeex kon day jàpp fan yooyu rek bu jàppee fan yooyu tey moom jeexut nag mu teg ñetti fan wóorloo ko léegi bu fekkee moom def na def na ko ñetti yoon waaye yoon bu ci nekk ñeenti fan rek la am deret ji jeex kon tey bu ko dalee day jàpp ñeenti fan rek su amee ñeenti fan deret ji jeexul nag mu wóorloo ci ñetti fan maanaam toog ñetti fan di xaar ba xam dana jeexam déet su jeexee ci biir ñetti fan yi mu daal di sangu tey julee ko war ak def yëpp su ñetti fan yi matee nag te taxul nag deret ji taxaw nag mu jàpp ne jàngoro la dal tàmbalee julee ko war waaye kat bu fekkee aadaam daa matoon fukki fan juróom bi yoon nag mu am ko te jeexut moom du ci yokk benn fan dañuy jàpp ne bis lu mën a weer fukk ak juróom nit ki koo xam ne gis na ko gisatik waaye bu ci nekk dara am ñaari ay bis muy fukki fan ak am ko te kooku moom da fukk bu fukki juróom rek daal sangu fi saasa tàmbalee ci lee ko waaye du ci wóorloo benn fan su fekkee daan am fukki fan ak nag jeexal tey nag mu am ko te jeexut kon benn fan dong la yokk bu ci yokkee benn fan tam jeex baax bu jeexul mu sangu su fekkee daan am fukki fan ak ñett jeexal tey nag moo am ko te jeexut kon ñaari fan dong lay mën a yokk yam jëf ko juróom ko defee nag daal sangu tey jullee ko woor wa in ixtalafat ndem wote woon na moom aadaam istazharat kon mu wóorlu ala aksari aadatiha ci gën jaa bari baaxam kazalika naka noonee nee na bu fekkee yoon yom weesu kat yemuñu woon li ma ko waxee am na ci boo xam ne daa amoon ñeenti fan jeexal am boo xam daa amoon juróom jeexal am boo xam daa amoon juróom benn jeexal kon juróom ci ëpp lay jàpp maanaam kon bu ko dalatee day jàpp juróom-benn fan te bàyyi ñeent ya juróom ya jàppale ci ëpp bu amee juróom-benn fan tam jeex loola baax na su fekkee am na ko te jeexul nag mu teg ñetti fan wóorloo ko baax xam na la jeexam déet ci biir ñetti fan ñi bu ci jeexee moom day sangu rek tàmbalee julee ko war bu ñetti fan ñi tey juróom-benn laa waxoon boo ci boole ñett mu juróom-ñeent kon juróom-ñeent fan ba bu jeexut tam moom da jàpp ne jàngoro la daal